na fi nekkal maison de moo leen di may fitnal néew doole yi ndongo ma xoolal ndongo dinaa la porter plainte pour séquestration ndongo kenn du tëj jabaru jàmbur tëjal bunt bi ma ni wuy ma fii eh, kenn du kër jàmbur ci anam yi ada adaay da ci biir tijjil la mën a bàyyi nga dugg de ndongo ndongo ma ni delloo leen ma sama jabar ay da bëggul dellu sa kër mais yow yaa sob mais yow lu la ci yow lu la ci sama diggante ak suma jabar lan la ci ndongo di nga tijji wala doo tijji. du tijji. baax na maa ngi ñëw maa ngi ñëw léegi yow dañ lay tëj. ay da waru na leen ni gaañu la. déedéet gaañu ma. bu bëggee mun na leen yóbbu hôpital de. jaru ko jaru ko de. waaye li gën a wóor. mooy nga wut certificat médical. nu mu ko doyee. waaye yow. fas yéene woo porter plainte dof bii nga xam nga baal ma de sa jëkkër la waaye nag. xamuma xawma sax lu may def fa mu waxtaan sama njëgënee. kenn mënula la wàññi ñaata yoon la la dóor te bés bu yàlla sàkk mu gën a garaaw lii mënatu way téléspectateurs yi ñu am mbégte nag dellu si ak yéen ba tey rek ci seen émission wareef ci télévision Futur Média ñu am mbégte nag euh, dalal suñu doom seen doom suñu caat seen caat Zey. waaw namb naa la. maa la raw ah paa bi. Paa Fa Ndiaye Lo Ndiaye. <laughs> sukk bi war na di mën a gën a suufe na dégg nga. alaaji waaw col gee rafet. Ah, wallaay alaaji sukk day day mët. Ah, waaw lii taxoon bu njëkk koo may ndox bu ko naanee mu rees. wallaay wallaay ndeysaan. Mm, gis nga nii lu olof naa sukk. waaw oom du tee. yóbbu say oom jërëjëf doom bisimilah maa fi nuyu naa la yow nuyu naa soo nuyoo sa papa yi <laughs> naa tamit téléspectateur yi jàkkaarloog seen télévision di seetaan Wareef nuyu naa leen bu baax a baax ku ci nekk sa tur sa sant. fa tabaarakalla macha allah Zey xam nga ni ne ñu ngi ci violence conjugale. Mhm. li may waxee rek ne rawee nañ la semaine. waaw semaine boo xam ne tamit. Mhm. ñu ngi doon wax ci mbiru labat yi. parce que dañ ne balaa ñuy wax violence conjugale surtout yéen ñi ci toll duggagu leen ci néegu sëy mhm. généralement am na ay signes de violence yoo xam ne mën nañ ko déceler ci seen ngoro dëgg la loolu defe naa paquet boobu dañ la jiitu woon moo tax waxoo ci dëgg la dëgg la kon dama lay jox su ko defee nga indi c'est-à-dire ah, c'est vrai que soo xoolee relation jeunes yi léegi hmm. dañ ciy faral di nemmeeku violence bu baax a baax a baax dama koy nangu en tant que jeune voilà loolu man dama koy nangu hmm. euh, li ci ëpp li koy indi fiiraange la mm. parce que dafa ci am ay góor yoo xamante ne dañuy bëgg wane seen autorité ci kaw jigéen. te takkagoo te takkagoo mm. gis nga tata jigéen wane autorité boobu sax comme démb ni ngeen ko doon waxee rek mm. am na fu mu yem. mais yenn saa dinañ la fekk ci biir nit ñi bëgg wane ne kii man maay boroom ndax fii rek dinañ wane seen bopp man maay gérer man maa aat voilà te yenn saay yi mën na dem ba soulan yenn saa dem ba susceptible da ngay dem. ba paranoïaque parce que di nga gis lu bon fu mu amul looloo war a yenn saa yi nga dem buntu boîte de nuit gis fa ñaari couple yuy xeex di foo dem rek di nga ci daje dafa dem ba nga xamante ne dafa mujjee banal parce que saay booy gisoo taamee génn danga koy gis tout le temps. kon ca labat ba rek. ca labat ba da nga koy gis violence yan forme violence ngeen gis ci labat ba. comme li ñuy wax lu nuyoo ci sëy. bëri na bëri na déjà déjà li si li si li si gën a bëri. mooy xuloo bi. ak kàddu yu ñaaw yi waaw. saagante da ngeen di saagante saagante saagante bi doon na loo xamante ne voilà saagante bi doon na loo xamante ne dañ koy gis bu baax léegi c'est même naturel dafa normal sax soo meree entre parenthèses tu pètes entre guillemets plutôt tu pètes les dafa normal da ngay en fait dafa mujjee ba dem normal daal. mais sëy ni ngeen bala saaga. Uh-huh. ci labat te duggagoo ci néegu sëy. Uh-huh. loolu ban jugement nga ci am. Cardigan xam nga toujours que jeunes yi koo si tegoon tey ji ne ko waa ni ngay def sa copain bi bu doon sa jëkkër ah, yii sama jëkkër moom su boobaa dama yii sama jëkkër mais ci moment booboo en fait nga war a jàng. yar sa kàddu parce que su fekkee ne danga bëgg dugg ba ci biir néegu sëy bëgg a commencé di yar sa bopp di yar sa kàddu te taa diggéen dafay jafe ñoom ñëpp koo ci laaj dalay naan non non sama jëkkër moom duma ma mel ak moom non sama jëkkër duma ko def lii mais si daar daar bi yaa ngi koy def ak sa copain te loolu moom mooy déterminer li nga xamante ne mooy doon sa sëy ëllëg moo tax ku ci war a ku ci bëgg daal li ngay dund ak sa copain nickel li ngay dund ak sa jëkkër nickel foog nga góorgóorlu jéem a changer loolu ca teel mus naa mus naa daje gis jeune couple boo xamante ne ñu ngi nekk ci mbedd bi di xeex ku góor ki naan ka naan bul ma topp mu ne ko dinaa dem de foo jëm fa laa jëm instant bii de boo demee sa kër na la leer ne maa ngi ñëw mu góor gi mujjee di ko dóor yiy dóor di ko dóor bi nit ñi mbedd mi ñëpp révolté wu ñëw attaqué góor yi mu ne leen lu ci seen yoon du ngeen ko ba seen yaram la wala sama bos pour te dafa da ngay xool nit ñi yenn saa yi da ngay da ngay choqué. Mm. mais man Tadege ni ma la ko doon waxee. te lii yëpp ci labat la. ci labat kese ci labat kese <laughs> loolu tu te demande mais ñii bës bu ñu seeyee. fu ñu jëm fu ñu jëm non da nga tu demande seen doom ci ban ambiance la ñuy yaroo. Mm. surtout loolu ban ambiance la xale yi di yaroo. ak lan mooy doon seen caractère léegi ki labatee noonu. Uh-huh. tant que jeune ba tey. parce uh-huh. que dama lay dama bëgg nga rattraper semaine dernière. Uh-huh. ba ngeen dugg ci néegu sëy ci noonu lu muy jur. ah li muy jur de tata dégg mooy. xam naa ne de ver est-ce que dana am ca kër googu ak seetu. ndax ci tojante la ngeen di dëkk moom. ba pare surtout xale yi u fait xale yi ban caractère la ñuy am ci lan la ñuy yar man loolu mooy moom moo ma jaaxal mooy ñi nga xamante ne. xam nga genre couple yooyu mieux vaut que bu ñuy sëy ñu dem toog wala dëkk wetu police mbaa gendarmerie nga xamante ne chaque fois dinañ am ñu leen àtte parce que wane woon nañ ko ci labat bi dëkkandoo yi dinañ sonn ci xuloo xeex ngaayo te fu ñuy mujjee toujours du mënul neex fan ngeen di mujjee mënul neex su fekkee da ngeen bëgg dëkk ci xuloo xeex lan mooy tas tas wala ngeen dëkk noonu doom gis nga taa diggante li si garaaw xam nga lan la xale yi man surtout damay xalaat xale yi nga xamante ne ñoom ñooy yaru ci situation yooyu mais balaa xale bi di judd sax zëy parce que mhm. da nga ma wax léegi jeune couple mhm. damay ñëw dugg ci seen bopp mhm. soo ma waxee jeune couple ngeen di ci labat ngeen nga bëgg attaqué quoi non non non parce que dama bëgg nga rattrapé sama parce que dama ay jeunes yu dafa topp étape effectivement semaine xam nga parce que su fekkente ne nekk wax ci labat bi ngeen defante noonu ba di xeex ci buntu boîte de nuit xeex fu ne uh-huh. ba ngeen banaliser saaga uh-huh. ngeen dugg ko ci biir sëy uh-huh. balaa xale di ci juddu sax violence boobu nga xam ne am na ci début vie conjugale bi ba ci sax est-ce que sax du indi fausse couche bëri ci xale yi ak lu bëri non non violence moom tata diggéen li mu mën a jur ci boppam bëri na que muy fausse couche ak leneen que muy sànq yaa ngi doon énumérer ay maladies yoo xamante ne mën na lu ne mën na ci xew lu ne mën na ci xew parce que violence bi su fekkee c'est ci ay saaga la xamante ne xale bu ndaw 20 ans 22 ans rek jékki-jékki rek commencé dof xel mi commencé dem bu fekkee ne physique la physique bi te taa diggéen dafa bëri ñaata yoon nga fiy gis jabar bu soode jëkkëram wala jëkkër bu door jabaram ba bët ba tuuroog yooyu conséquence yi. Zey lan mooy cause violence conjugale ci jeune couple. ci jeune couple ça veut lan moo suuxat loolu. lan lan moo suuxat li yëpp ci ci jeune couple yan couple nga mën a énumérer. taa dégg man man man jalousie bi d'accord naa ne hmm. cause la. même jalousie bi je muy fiiraange gu ëpp hmm. man d'accord naa ne bokk na ci ci loolu hmm. mais man sa sama intime conviction li ma wax xam nga lan la hmm. violence conjugale li ci ëpp li koy andi mooy manque de revenu que mu nekk ci góor ki que mu nekk si jigéen bi ci jeune pour man pour man comme yu jeune couple comme yu mais surtout si jeune couple yi aussi noonu la parce que dama am sama benn xarit bu ma sa wax mu ne ma man sama jëkkër daf may xool naan maan ay dama ragal sax nga rëcc dama ragal j'ai peur de te perdre parce que yow ñeewee woo ma dara est-ce que comprendre taa dégg li li li ma bëgg jëkkër ji moom moo wax loolu jabar bi mm. mais ma ne kon kooku su fekkoon ne tey jii ci jeune la voilà ci jeune ci jeune nee na jabaram ñeweewu ko dara maanaam mm. su su defalul jabaram jabaram mën na jël ci poche defal boppam mm. te moom loolu daf ko tiital daf ko tiital parce que si kaw loolu xalaat na ne jabaram ëllëg ak si biir mën na dem mais kooku taa dégg su fekkoon jabaram yorul dara hmm. kooku naka lay comporté woo ci te hmm. poses cette question dina hmm. jël jigéen bi def ko comme esclave et en général les femmes battues que muy ci jeune couple yi que muy ci ci ci mag ñi foog naa ne manque de revenu bi bokk na ci et puis mënuma fàtte tamit drogue mënuma fàtte tamit alcoolisme parce que ci parce que ci ñoom lañ koy gën a gisee te soo xoolee homme yi nga xamante ne dañoo violent ñi si ëpp suñu lucidé ñëw taxaw nii normal amaana boo leen xoolee sax ñu sëgg mais suñu demee ba naan wala ba drogué wu. si la ñuy indi nga nag cause bu mag bi. ci violence loolu mënu ko mënu ma ko dindi. drogue bi bi doog. voilà bi alcool bi mënu ma mënu ko dindi. parce que képp koo xamante ne ku xam drogue xam alcool xam ne da lay tàggaleek sa sago. Mm. ni mu lay tàggaleeg sa sago ku nekk ak. na nga koy manifester te xale yi voilà dañ koy use ba mm. pare amin bi. Mm-hmm. dafa yomb. Mm-hmm. loolu yëpp daal buñ ko boolee. daa diggéen paquet bi dafa dafa rëy. violence conjugale ci nekk introduction bi laa bëggoon sëy wax ak jeunes yi parce que dafa am lu mu tëboon. <laughs> waaw xam nga digal. Mm-hmm. alaaji ndaraw sekk yal na ko yàlla yërëm ci Tiwaawan moo doon xaritu alaaji Amad Baseen ak Cheikh Kan. ndeysaan ndeysaan amiin alaaji nii denc sa tante ju baax yii. ndeysaan ndeysaan. musta am jamaale ba ni mu faatoo musul jigéen ñoom naa la denc na ñeent. dëgg la. la daan teral di la teral ba yàgg nag mm. say waaju woo la la ki teral indil ma ko mu wóolu ko mu ñëw toog mun ko soxna laala lay may laa juma si jikko ndax noobal nga dëgg la day ñëw wane laaj ah, ah, ah, jikkoom a ko tooñ jikkoom jikkoom dara tey ndaraw dëgg la ca Tiwaawan dëgg lii caat wax mm. dama ni mm. moo tax lab amatul labat a bari lab bu ci naan duggee labat yaa mbaa dugg sa nga dugg. Mm-hmm. ka ngay labat tey jigéen war naa tiit lu mu doon doon gone. tey pastis dugg ak riclees. déedéet ah déedéet ah, déedéet kii woy kooku dinaa ko fi invité sax. am na kenn kii woy xaw ma Salim bay xaw ma mu naan pastis day màndi. riclees day màndi kooku dinaa ko fi invité. Eh. pastis dafa am président. pastis. pastis ministre la. pastis dégg naa day màndi de. ministre la. Mm. président. waaw. jiin député la. ji jiin. député la waaw mooy bi xale yi def jiin. yamba. mooy président la république. jërëjëf. ma ñëw. Mm. dama ni moo tax labat. ala ala ji ala d'accord ma xale yi xeeb nañu yamba bi. ah xale yi xeeb ah déggal sëy. mu ni xale yi xeeb nañu yamba bi de waxal. yii defloo yii gën a indi violence. waxal dégg nga. nee na cocaïne héroïne. waaw ma ne ma alaaji même gens bi waaw même yoo dégg même yi ñuy ah, lokk d'accord naa dégg xam nga lokk yu sant siin jële ki ci ligne ma ñëw yow <laughs> say jëlal allo allo waaw salaamaaleykum soxna si maaleykum ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay mhm. maa ngi rafetlu émission bi jërëjëf man defe naa ba ma juddoo ba léegi moo sama wax télé wala rajo dëgg la c'est la première fois mhm. waaye dama yaakaar ne seen thème bi moom ku nekk moo ci war a dugg gis ci boppam mhm. ndax lu tax thème bi moom am na importance importance boo xamante ne man dama gis ku ko dund. Mhm. parce que li nga wax ne sànq ne ñi nga xamante ne dañuy dóor seen jabar yi seen milital. Mhm. bu dee fukki nit koo ci kenn. wax na bee yaatu. dégg ma ñëw ah, ah. tuuti. Ah, lu waaye log-log di ko mos a yàgg. Mm. dama ne. Mm. ki ngay labat si. laa ne labatata si réew mi. waaye lab abatul. dégg gis naa caat. am na fu mu toll ci man. gis naa caractère am. léeg-léeg nga dem di laba ci jigéen. fulla ak caractère dina tax dootoo ko ñeme. dëgg boo doon def lu bon sax di ko baax. Mm-hmm. boo ko bëggee am. Mm-hmm. am déet. Mm-hmm. jëlee ki jëliñ bi. cay caat jëlal allo. <laughs> waaw na ngeen def. ñu ngi fii ku baax. ñu ngi siyaare bu baax di leen bu baax. ah delloo ziar. suivre émission bi chaque jour. dëgg la. xaritam du doy ku nekk war na cee joxe xalaatam. waaye mhm. ah, jàpp naa suñu papa su waxee rek moom xam na li gën a waral dëgg-dëgg cause bi am. incha allah mooy ah, daanaka nit ñi dañu xamatul seen bopp. Mhm. jërëjëf njëkk da ngay gis soxna sax soo xam ne day mel ni mu waral a mel. mais war mhm. waa nit am lu dul jeex bëgg ko mu lànk. billaahi ndax lu tax jikkoom moo ko neexul. Ah. Mm-hmm. kon mais tey li ñu sëyee mooy dama yàlla baal soo ne bay sëy ak tubaab am na ñoo xam ne ñu ngi sëy ak nit koo xam ne seen waajur moo dundul mais seen waajur bu doon dund duñ sëy moom ndax seen waajur xamoon nañ ko ci bañ ci teg léppam ci dal ak teg waaye léegi li gën a tax problème bi am mooy xam nga nit ki moom soo jiwee dina sax mais la nga ji bu saxee nag léegi da ngay da ngay jéem a xool na muy jéem mel pour boo koy boo koy bëgg a jariñoo léegi nag ku nekk li nga jëf rek la la suñu borom di fay lu ci ëpp nag loolu la mooy jeexital ñooy gis nga gis nit ci mbedd mi sax muy taxawaalu mel noo xam ne dañ koy yaakaar ne leen la fekk dara lu mu yàlla baal yàlla moo xam lu muy def mais am na lu mu defoon loo xam ne ci ginnaaw moom xam na wala mbokkam yi ko xam wala ñu dëkk moom xam na li tax lii dal ko loolu moo ñu dal ci lépp dangay gis koo xam ne dañ koy day day sëy ami jafe jafe ami problème fekk ba muy dugg ci say ba ay góor ñu ne ko déedéet bu ci dugg jikkoom nii jikkoom naa xaalis moom mu gis xaalis bi gis teraanga gis lu mu koy defal dem ba ci biir na mu koy dóor di ko def loo xam ne mënatu ci dellu ginnaaw mu amatul lu mu ciy def parce que li tax mooy jëkk euh, góor dina dóor jigéen góor dina dóor jigéen mooy jigéen du ci man dara parce que amul fu mu koy jooyee ji parce que Baye Ndiaye aaye woon na ko ne ko bu ci dugg xamoon na ko ko xam yi mbokkam xam-xamem xam déggam mm-hmm. xam sayam mm-hmm. léegi nag Baye am na dëgg ci kawam moom it amut lu muy mën a def ci arrière bi am ku mu koy booleel ku muy kalaameel ku koy jàppale daal moo tax da ciy néew doole trop da ngay gis suñu tool daanaka doy na waar daal nañ gën a xam suñu bopp bàyyi complexe bi. Hmm. bàyyi complexe bi voilà. Hmm. yal yàlla jàppale bàyyi la ak sam xel. day dégg nga caat yow góor a dégg eh, hmm. mariage. bu ca jàmm génnee. l'argent amatu fa. di nga dem ci kër. xaaj bëriwu fa. ñu ne ci àjjana. dem ci kër. ay milliards yi fa fanaan ñu nekk ci musiba. li nga waxoon sànq ni. léeg la nga gis jéeg bu yor carte carte. ay waay diggante. Hmm. yor portable. tey soo ko xamoon la muy dund. boo xamoon la muy dund ak la mu lokk bu ko yaat boo dee dina tukki. ak la tax du sumi lunette ya. jeex na xam nga caat dafa dama ne labat bu njëkk laala la ne. li mu wax tubaarkàlla. labat bu njëkk caat. dafa am yoon. li mu ne am nañ bu seen waajur doon dund fa ñu dugg duñ fa dugg bi lay wax nañu dëgg. Mm-hmm. dama ne. mariage su pénc moo xewi moo tax ay di am Dakar ci digg pénc ma ñaar fukki mag a ko daan ci séq fekk woon démb fekk ba sa ndey doonee gone te demagul néegub sëy ba mën la caa jur xam la xewoon démb mu dëxañ ko boo fa bëggee dugg boo leen tàggu ba léegi am na fu ñu leen mën a jaarale ba bu ëllëgee doogi erreur dégg ngeen loolu amatul nan waxtaan rek dégg ci dëgg jële ko ci ligne bi jële allo <laughs> da ngaa lóom fi mu ne laa yaakaar. maaleykum salaam. paase na.